allah allah allah feer na amul benn bu dul war a jaam bu dul moom noo ngi baalu àq ñëpp te di leen baalu àq tey ñaan borom bi subhanahu wa taala mu bokku ñu jéggal ñun ñëpp bokk yi sunu xutba tey mool ay mooy alxaya wa wa satru aw wa sitru mooy kersa ak sutura mooy kersa ak sutura bokk yi xam ngeen ne lislaam dafa bëgg jukka ju rafet dafa bëgg jukka ju rafet moo tax suñu borom daa bokk ci jubte yu rafet yooyu lislaam sàkk ca bëgg ko mooy nit ki di am kersa ak sutura ma waral mu bokk ci jukkay lislaam yi ñaari jukka yooyu mooy jukkay kersa ak jukkay sutura mu bokk ci jukka yi nga xam ne jukka yi lislaam gën a fonk la tax mu di ci jàngale ak a soññe yonent bi sallallahu daana jàngal aw xeetam jukka yu tedd yi jikko yi am nga neen waaye daana leen moytandikuloo li nga xam ne ay aadaat la yoo xam dañ ko fe fekk te dëppoo wut ak diine ak jukko yi nga xam ne jukkoy jaahiliya yu jiitu yi la woon loolu lépp yonent bi saa sallam daanoo ko moytandikuloo ñi nga xam ne ñu aw xeetam lam leen daan digal mooy yu jukko woo jukko yi nga xam ne jukko yu tedd la waaye nag di moytandiku jukko yi nga xam ne ay aada la aada yoo xam ne dëppoo wut ak diine wala jukko yoo xam ne boo ko xoolee ci jaahil yi rek laata lislaam di ñëw ci nga koy fekk sallallahu alayhi wa sallam daana ko maytandiku loo aw xeetam ba tax na suñ borom subhanahu wa bokk na ci lenn ci ay jëfam mu di ko def ci jàmm mooy di ko suturaal moo tax yàlla ku bëgg ku suturaal doomu aadama la waaye bokk na ci tamit mooy yàlla dana bëgg jàmm boo xam ne jàmm bu am kersa lay doon kon jaam bi nga xam ne dafa ñàkk kersa moom yàlla sopp ko suñu boroom jaam bi gën a bëgg mooy jaam bi nga xam ne dafay am kersa màggaayu yërmande borom bi subhanahu wa taala nag ak ngëneelam bokk na ci mooy suturaal gi muy suturaal ab jaamam wala suturaal gi muy suturaal way gëmam ca du ko gàccaal mukk ci lenn ci loo xam ne da koy toggoo ci ay bàkkaar ak ay ñaawteef sutural suñ borom nag ci jaam bi du yam dong ci aduna yàlla ni muy suturaaloo nit ci aduna non la ko suturaalee yowmal qiyamati akbar nga xam ne suturee suñu borom yamul fii dong waye suturé sun borom day jàll ba yowmal qiyamati akbar mo tax sun borom wax ci qur'an ne ndax giso len na yàlla mo len tagat tagatal li ci nek ci digënté asaman ak suuf waye nak jotal len xéewalem kenn ku ci nek mu xéewale la ba nga yëg xéewalem xéewal gi zahir la ji batin la jaam bi ñaari xewal moo ne ci moom xewalug zahir ak xewalug batin ibnu abbas nee na bu dee xewalug zahir bokk yi mooy xewal gi la suñu borom xewalee nga judd doon ab jullit dugg ci lislaam maanaam nga judd rek yàlla dogal nga doon ab jullit xewal gënu koo màgg ndax bari na yonente bi saa bi bi muy woote ci jamono jooju suñu naan ko fasda bi ma tumar wa arid anil musrikin aw anil aw anil jahilin yonente bi salaa sallam doon woote bari ñu fekk woon jamono jooju danoon lànk na duñu wusi kon xéewal gi njëkk ci jaam bi mooy nga nga doon nit koo xam ne ab jullit nga genn xéewal mënul ne moom kooku mooy xéewalu zahir ñaareelu xéewal bi mooy bi nga doon ab jullit ba noppi ñaareelu xéewal bi mooy nangu bi nga nangoo yonente bi salaa sallam téere bi yàlla bii su moroom wàcc ci moom kon ab jullit ñaari xéewal yi mooy xéewal yi gën a feeñ ci moom mooy ni'matul islam wal qur'an mooy xéwalug lislaam ak alquran loolu ku yàlla dogal mu ne ci yow am nga xéwal ñun nag liñ jàpp xéwal rek mooy ay oto ay jongama ay kër ay nangam waaye ab jullit xéwalam dëgg dëgg dëgg dëgg mooy yàlla boole gi nga ko boole mu doon mu doon ab jullit nekk ci lislaam yàlla tey boole gi nga ko boole bi mu ginnaaw am jullit téere borom bi subhanahu wa taala boobu mooy an niama azahira bu dee an niama al batiniya mooy li ngay def ci ay bakkaar yàlla dina ko suturaal ba kenn xamu ko ca gaawewu la ca bugal ca bari na ci ñoo xam ne bokk yi bu yàlla wuññi woon suñ sutura kenn du leen kenn du leen sukkal kenn du leen raamal kenn du leen jege kenn du leen fréquenté yàlla képp moo xam seen biir ak seen bitti ci lu baree bari kon xéewalu baatin mooy suturaal bi suñ borom di suturaal jaam bi ci ay jëfam léegi-léegi nit jëf lu jëf loo xam ne jëfuwut yàlla sutural ko ba kenn xamu ko kon suñ borom bokk na ci xéwalu baatin gi mu xéewale nit ki mooy sutural gi mu koy sutural ci ay bàkkaaram ca bu ko neexoon wuññi ko te gaaw ba ca gaawe ko wala bu ko neexoon ni mbugal ko ci waaye yàlla sutural ko rek ba kenn du xam ci lu mu nekk ma waral benn xadis safaan bun muhris al mazani nee na benn bis damay dox ànd ak ibn omar radiyallahu anhuma nee na mu jàpp ci sama loxo ñu dem ba dajeeg benn waay boo xam ne dañ koo laaj na ko waaw naka nga déggee wax yonante bi sallallahu alayhi wasallam ci waa najwa waa mooy euh, loo xam ne ndeyante la nga xam ne koo xam ne dafa beru rek bu dee benn yàlla ñaareel leen wala ñetteel leen wala ñeenteel leen kon waa mooy loo xam ne lu nëbbu la nee na mu ne ko samiatu sallallahu alayhi yaqul mu ne dégg naa yonent bi sallallahu alayhi di wax ne yàlla bu ëllëg yow man xam akbar ba suñ boroom di àtte jaam yi dana ñëw ba ci benn waay tolloog nopp bi na ko ndax bàkkaar sàngam xam nga ko yaa ko jëfoon ñee mu ne waaw mu ne ko ndax bàkkaar sàngam xam nga ko yaa ko jëfoon nee na mu ne waaw yàlla ne na xam ko dama laa suturaaloon ba kenn xamu ko waa ji ne ko ah waaw waaw suñ borom ne ko nag ni ma la suturaaloon ci àdduna ba kenn xamu ko suturaa naa ne fii ci ba kenn du ko xam kon yàlla day suturaal nit fii ci àdduna du ko suturaal ëllëg yemal xal akbar mbokk yi am na loo xam ne su ko gis nga yàlla bari na ci ñoo xam ne tey jii sëñ bi bu yàlla wuñu woon seen sutura rek ñu balee yàlla bu leen wuñ bari bu wuñu woon seen ñu balee ndax seen i njombe ak seen i jëf-jëf ak nangam nangam ca ca ñooñee sax mën nañoo am ay doyof mën nañoo am aw tur mën nañoo am lu ne waaye ña ngay jëf jëf yoo xam ne bu yàlla nag woon fang ñu ne ndo danay njëkk wax suñu borom suturaaleel ba kenn xamul loolu war a nit ki sutura lu am solo la du nit ki loo ko xamal rek wax ko nit ki loo ko xamal rek wax ko déedéet lan tàkk ci nit ki nga de ko xamal di ko wax mooy lu baax soo ko xamee loon fukk yu ñaaw nga man koo xamal benn bu baax bokk yi benn bu baax boobee lislam santaane nga di ko wax waaye li xew ci jamono wuññante sutura ku la dàq wax lu ñaaw nga ne kii da ngay nekk ak nit fukki at wala nga nekk ak moom juróomi at mosoo leen a séq leen lu rafet benn njuum njuumte ñëw wala seytaan dox seen diggante mu wér ci média bi xaw sa sutura ba ba ba mu dañ sëkk te yow jariñ na loo xam ne tey jii sa sa sa dund sax amaana keneen du la ko jariñ ko dul moom wala mu defal loo xam ne tey jii doom yi nga jur sax defalul la ko benn bis dikk rek saytaan dox seen diggante bokk yi nga wër média yi wala wër wala nga garan place boo toog yàq deru diw moomu pourtant diw moom nga yàq deram ak di wax ci lu ñaaw ci moom yaa ngeeg yu ne weñ yoo xam ne bu ko yàlla wéroon ci penc mi kenn dootu la yu weñ yoo ne yàlla wéroon ci penc mi kenn du la xool yàlla moom nga xam ne day suturaan adduna fii day suturaan fii ëllëg kon nañuy suturaan dara suñ bii du nit ki loko xamal rek wax ko lo xamal loko xamal wax ko su fekkoon nit lu mu xamal nit wax ko kon ñëpp ñëpp xottatan ay sutura legi nak li xew ma moy moy suma la jàkkaarul wax lako yow dana dem def sama vidéo ci internet bi sànni lu ne luma luma la bëgg yek yek lako luma la bëgg xass xass lako luma la bëgg ñaawal ci xiirlo loolu mo ci xew wala ma fekk audio bo waxon nga xamne da nga sutura won sa bop ma génn audio ba tasaare ko kenn ku ci la gel fi nan diw diw diw nangam diw nangam kon yàlla daa bëgg sutura kon nañu suturante suñu biir bokk yi te fii jamono toll ginnaaw yàlla bu ëllëgee mooy lay jege naan la defoon nga nangam defoon nga nàngam nga naan waaw bañ a weddi mu ne la dama suturaal suturaal ko fii ñun jullit yi nag kenn ku si nekk war ngaa jéem a suturaal sa mbokkum jullit bokk yi euh, kersa nag ak a néew ci jamono ji ñàkk kersa moo ëpp moo ëpp moo ëpp doole fi mu doole néew kersa nit ñi ñi ci bari amatuñ kersa lu leen neex la ñuy wax lu leen neex la sol lu leen neex la ñuy doxale koo ci wax mu ne yoroo saab dépasse xottiloo ma dégg nga joxoo ma lekk joxoo ma naan yilifoo ma loolu rek ngay dégg ci jamono ji néew kersa gi na gaañ te bu dee ci wàllu góor yi ak jigéen yi foo ci foo ci xool fekk ci néew kersa fekk ñàkk kersa gu ma sëkk nga ci gis bu dee ci wàllu jigéen ñi te dana ba ci col gi col gi col gi sax dañ ci ñàkk kersa da ngay soo xam ne la mu sol dara baaxut te ñi ci bari nag bokk yi ci ay këri kilifa la ñuy génne romb seen i nekk seen baay sol loo xam ne ku am kersa jigéen gu am kersa sax du ko sol wala ñu wax wax xam ne jigéen gu am kersa sax du ko wax te mi ngi ne fang ci dëkk bi nit ñi fang ci dëkk bi ñu du ko gis kon ñàkk kersa gi gi tasaaroo bokk yi war nañ cee bàyyi xel kersa nag day ñett. kersa sa diggante ak sa borom nit ki dafa war a am kersa diggante ak boromam subhanahu wa taala am kersa si diggante ak doomu aadama yi waaye am kersa si diggante jëmi boppam yi sa jëmi bopp ji doon war a ci am kersa kersa gi war a am sa diggante ak sa borom mooy fexe ba yàlla lim digle nga di ko def lim tere nga jëm koo bàyyi foo nekk yow dong xam ne yàllaa ngi la ñaareel soo wéetee nga gore boo wéttalikoo nga gore li nga xam ne jomb nga koo def ci mbooloo muy lu naqar yàlla boo wéetee na ko jomba def ndax yàlla ngi lay seen yàllaa ngi jàkkaaroog yow nit nag man damaa jàpp nit nit ku bàyyiwul xel yàlla ci li ngay jëf ak ci lu mën a doon jurul bàyyi xel doomu aadama ndax doomu aadama bi ngay nëbb li ngay jëf yàlla moom mi ngi ne fàng di la xool ci am te ñu ngi koy bind te boo liggéey dana la ko ba jiital yàlla ci ci li ngay jëf laata doomu aadama waaye léegi-léeg da gis nit ki yorub cigarette di tux gis waa benn waa bi ñëw mu jëm koo fay waaye yàlla yàlla yàlla mi la ko tere na nëbboo ko de yow nga gis ku yëg bi sàngaraam di naan seen ma seen jiw a ngi ñëw wala ku nekk ci loo xam ne dafa neexul yàlla nga ah, sëñ jiw a mais sëñ jiw moom ngay rus dëgg la de jiw moom nga rus ba mënoo jàkkaarloo ci loolu doo xalaat yàlla mi la sàkk ba noppi teralal li ngay def soog rus sëñ jiw loolu moo ma bàyyi xel kon nag kersa sa diggante ak sa borom mbokk yi moo war a jiir ci lu mu mën a doon nit dafay am kersa diggante ak boromam jomba tux jomba naan jomba njaalo dégg nga jomba wax lu na xarit yëpp nga xool ci di jëmmi borom bi subhanahu wa taala bi la ko tere te lu ci bari nit ñi boo xoolee ñàkk kersa moo moo ko waral da gis koo xam ne sax mbokk yi ñàkk kersa mooy tax mu yërub cigarette dikk ba ci ay doomu aadama di leen ko di di mën ko di di xër te la ko dagadal nag dagadul tux li muy yàq ci nit moo gën a dansal li dem defar ci doomu aadama borom xam borom xam-xam yi dem nañ ba ne jigéen ji ëmb nga den nag moom ne bi nga koy sànni nii mën na koo averteel ngir bon day dem ba yàq sayria da nga gis koo xam ne tux mi mu doon tux lu mu yàgg yàgg yàgg mën na ko indi feebaru cancer te yooyu baaxul te ñàkk kersa moo koy waral wala koo xam ne saa bitéel sàng rek la yor wala koo xam ne foo ko fekk day njaalo yonent bi sax nee na njaalo day wàññi wërsëg njaalo yonent bi saa saa ne ku ci dëkk doo am wërsëg kon yooyu yëpp ñàkk kersa la sa diggante ak sa borom subhanahu wa kon nan fexe ba am kersa su suñu diggante ak suñu borom di jëf li yàlla santaane kay mooy tëndiku ay tereem beneen bi ci des mooy kersa sa diggante ak doomu aadama yi mooy fexe ba nit ñi bu leen bu leen lor buñ la lor bu leen lor buñ la lor ñaare ba bokk na ci mooy fexe ba bañ di feeñal ay ñaaw ñaawteef ci kanamu doomu aadama yi loolu ñàkk kersa la bañ di feeñal ay ñaaw ñaawteef ci kanamu doomu aadama yi yooyu yëpp ci ñàkk kersa la bokk beneen bi ci des mooy nga fexe ba am kersa jëmi bopp ji yow yow doomu aadama bi mooy nga fegu nga fegu fegu mooy lan fexe ba sa cër yii benn cër bu ci nekk bu mu bëbb di def lu naqar yàlla donte yow dong yow dong yaa nekk fa nga koy fa nga nekkee <coughs> loolu lépp dafa war a bàyyi da ko war a bàyyi xel te jëmi bopp ji fexeel ba am kersa Seydina Ousmane radiyallahu taala anhu wax na nag maanaam bëri kersaam moo taxoon maanaam awree boppam sax mosu ko gis ndax bëri kersa su xayaa dafa bëri woon kersa xoolal loolu nit day am kersa ci jëmi boppam waaye maa ngi fi kenn gisuma lu ma neex def lu ma neex nangam loolu jëmi bopp da koy da da ko nit da koy moytandiku nga xam ne sa cër sa juróom-ñaari cër yi ci nekk da nga war a jéem am kersa moo nee na kersa du jikk du dikk mukk lu ci aw yiw nee képp ko am yàlla dogal nga am kersa lam lay bijjil mooy lu baax rek ñàkk kersa tamit la muy jural nit ki mooy lu bon rek moo tax suñu boroom wax ci alquran ne lu ñaaw képp ku ci sax day mujj loole la mu koy jural mooy ay bon bon ay ñaawteef waaye nee na kersa ku yàlla dogal nga am ko nee na la koy la lu baax lay doon suñu borom wax ne kon yéen doomu aadama yi wàcce naa ci yéen libaasu taqwa maanaam libaas mooy mbi mbalaan moo xam ne day muur seeni ñaaw téef daal wax ne nag wa libaasu taqwa daalika xayrun lakum mbalaanum ragal yàlla nag moo gën ci yéen xam nga nit ki bu ragalee yàlla bokk yi dana jomba wax lu ñaaw dana jomba def lu ñaaw nit ki bu ragalee yàlla ndax lu muy def da ci seen dafay xool yàlla dañuy ci seen yàlla yàlla rek la ci bàyyi xel waaye képp ko xam ne ragaloo yàlla moom loola neex def loola neex wax ca li xew ci jamono moom daanaka sëñ bi ak ragal yàlla yombul de suñ borom it bañ na nit koo xam ne da ngay xaw sutura da ngay xaw sutura loo xam rek loo xam si nit rek waxal ko ko loo dégg si moom tasaareel ko ko lu mel ne whatsapp yi whatsapp yi facebook yi tiktok yi dégg nga youtube yi ak yu mel nii jamono ji ñu mooy jumtukaay yi nga xam ne ci la ñuy xawee suturay doomu aadama mooy jumtukaay yi nga xawee suturay doomu aadama su ma la bëggee wax lu ñaaw damay dem vidéo sama vidéo wax ko tasaare ko ñëpp jot ci su ma la bëggee wax lu ñaaw damay audio sama audio tasaare ko ñëpp jot ci sëñ bi fa fa àdduna bi jëmati fu nit ñi jëmati ñàkk kersa geeg ñàkk sutura gi ak mbonte gu yàq sa gi lépp ñu ngi koy gis léegi ma war a orientation bu mag bu mat sëkk ci la jullit yépp war a jubale ndaw tey internet baax na de dafa am ay positif am ay négatif ñun jullit yi dafa am lu ñu ci war fi toll ni xam-xam boo ko bëggee bari le mën ngaa dem ci internet bi am xam-xam xam-xam boo bëgg nag mën nga ko ci am waaye boo ci bëggee bon mën nga cee bon waaye nan sax kon ba baax ci moo gën mais du du ay yàqante ay der ay wuñante ay sutura ay waxante lu ñaaw ay defante lu ñaaw ay wuññi ay awra di ko dugal ci biir dégg nga nangam ak nangam ak nangam da ngay gis nit fi romb di def filmé ko rek mu mel melokaan woo xam ne jaadu rek mu ruwoo ci internet bi kenn ku ci nekk da ci commentaire ko wax bokk yi nan am sutura nan am kersa ca am sutura hada zaman aqbahu zaman li kasrati l isyaani fi l buldan jamono ji moo gën a bon ci jamono ji li ko waral may gu bori ak yàq yàq gu yàq nit ñu bari yi yàq ko ne ko nekk bëgg a yàq sa morom kenn nawlootul kenn loo xamal nit rek wax ko ko te yàlla mi nga xamal ne moo xamal ñëpp kenn kon mi ngi ne bokkal lu na weng loo xam ne bu ko weeroon ci pénc mi mel nag géej gi nit ñi daw la ak koo mën a doon nag kon nani amali nani amali sutura أقبه الزمان لكثرة العصيان lumus lil buyut ku زمن السكوت mucc del للبيوت كما مج sa نب اتقوا سكر جنيا لا جس نانو ngi fi rek foo nekkoon man ko maa ngi sama kër boog jamono bokk yi jamono ji ñu nekk ndaje yeeg dégg nga garam place yeeg programme yeeg yu mel yëpp ku ko mën a wàññi wàññi ko ku ko mën a wàññi wàññi ko ca sax ci jub ak a jaamu yàlla foo nekkoon nga ne ci li nga war a nekk rek nekk ci li war a nga war a nekk nit ñi moom ku nekku ci li war a nekk ña faw ñu yóbbu la ginnaaw boo defee ñu wax boo deful ñu wax nekk ci li nga war a nekk ku def ñu wax ku deful ñu wax fexeel ba yow nekk sa la nga war a nekk bokk yi waaye moo gën lambar lambar jeeg mbasal mbasal jeeg fenn fu nekk ñu gis la fa jaar na fii tey def na sa nangam nangam ku ko man saxal sa kër ca jaamu yàlla ndaje yeeg dégg nga réunion yeeg dégg nga woote yeeg yu mën a doon sax leen seen kër ci jaamu borom subhanahu wa taala am na ci yoo xam ne dañ fa waroon a jëlee njariñ waaye bàkkaar dong lañ fa jëlee ndax ñàkk kersa geeg ñàkk sutura geeg xasante beeg dégg nga waxante ñaaw yu mel noonu ca loolu ba gis na ko ci dëkk bii moo su ne fi ni mujjante la إلا الذين يحبون أن تسيع الفائدة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم لهم أصاب في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون يلا نينا غاي نيغا خامني دانو بغا سيوال لو نياو سي غاي نيغا خامني دانيو گم ñooñu bu ëllëgee mbugalum àdduna ak alaxira ñeel na leen mbugalum alaxira àdduna ak alaxira ñeel na leen moo waral nit ki su xam wax naa ko ci njëlbeen ku xamal nit ki benn bu baax del wax bu baaxam boobu ca li gën a bon ci àdduna mooy def lu bon yow képp nga xam ko yàlla suturaal la nga xëy suba weer ko ci penc bi loolu mu yonte bi sax sama ne ku koy def yaa ngay def lu lislaam bañ yàlla suturaal la ba li bi nga def kenn xamu ko yàlla suturaal la ba fi nga fanaan bii kenn xamu ko yàlla suturaal la ba ni nga fanaan bii kenn xamu ko yàlla suturaal la ba fi nga demoon bii kenn xamu ko nga xëy toog naa gaa yi te kay sama guddi bii nangam ak nangam fu ma demoon li ma nekkoon sëñ bi kooku moo ñàkk sutura yow yàlla suturaal na ko looy looy wàññi xawee sa sutura ku yàlla suturaal da ngay suturaal sa bopp waaye ku yàlla sutura waroo xawee sutura ak bopp kon nag maa ngi dénk sa bopp di leen ko dénk kenn ku ci nekk si ñun na nga suturaal sa bopp suturaal sa mbokkum julit suturaal sa si jëmi bopp suturaal képp ko war a suturaal te ñu bàyyi xasante bi waxantelu ñaaw yi xawante sutura yi tooñante bi kenn ku ci nekk di tam sa morom loo xam ne du dëgg wa an al alxiyamata asin yow la xiyaam nga ñëw de ci foofu moom lépp léppay fay léppay fay loolu nag ku ko dul bàyyi xel lu neex nekkal suñu moom lépp ëllëg dana ko ne ko dana ko ne fànn kon nag la gën mooy ñu tuubal yàlla kenn ku ci nekk nekk sa war nekk sax ci jaamu yàlla bàyyi tooy bàyyi wax nekk su du noonu lu la waaye wax ci nekk su du soo ko mënee jéggal nga jéggal soo ko mënta jéggal nga nga dem ba ca moom na ko wax nga ma loo xam ne mënu ma a koo jéggal ci lu nangam ak nangam ak nangam waaye soo ko mënee jéggal moo gën yàlla nee na leen tooñee su ngeen mënee baale moo gën waye bu ngeen mu dabalé bu ngeen di fayu na ngeen fayu comme nañ leen a yàlla yàlla dafa dëgg ak top rabbana atina fi dunya hasanatan wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab هب لنا عمرنا وسهل لنا بدنا وهب لنا رزقا وتوفيقا يا الله ودمر كل اعداء تدري بنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله وكن معيسا لنا من شر في حسد ما شر من وشر عين ya allah اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا الاتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب ما زاغ على بالعزيز yaxfirullahu lana wa lakum wa li shaari muslimin amin